saxlooti yariiru yor daara kon kay yar lu war la si ndaw yar dëgg mooy diine tey masla toroxlooti yar mooy nga weg ña la mag tey yërëm ñi nga mag woddoo sërub muñ te ànd ak dal ba fa wooti nee nañ ma kersa di rus buur yàlla gis la ci bon doo dem fu bon doo ko wax doo def lu xeebooti njub mooy ragal yàlla sax ci jaamu tey rafetal ak njub xamul wor xamul caay-caay di yàqooti ak baax dalay fóot nga far set wecc dee la jam day tax ñu lay naw di lay wor maal nga yokkooti yii yépp nag jom dakoomu ndaxte xol la ci ñoom ne kër bu gente ñu naan ndeysaan jom mooy taxaw jodd ne lii nii ma teg sama bët naa am ko naa man ko nem sob na yàllaati ku boole yi melo jàppal ne moo yeyoo ndami ndam ne ku muus na dem rooti ngir ràngoo médaille rooti ngir rango mi ku boole yi melo ne moo yoyoo naminam ne ku muus dem rooti ngir rango mi daayaati assalaamu waram takbir Bamba ma tere nelaw seedeleen ni Bamba moo julli fu wuy ju leen ko sin bamba woote na bamba ma tere nelaw seede leen li bamba moo julli fi bamba ma tere nelaw seede leen li bamba moo julli fi bamba woote na bamba bamba woote na bamba wuy ju leen ko sin bamba woote na bamba ma tere nelaw seede leen li bamba moo julli fi Bamba ba tere nelaw seede leen li Bamba mujj Bamba woote na Bamba woote na wuy ji leen ko sin Bamba woote na ñu jàng si alxuraan te xam ne diine si lay soso jànga fi njëkk jànga fi mujj képp ku jàngul du doon imaam doo gis ku jàngul mi toog si biiro do gis ku jàngul muy doon imaam yàlla ko wax yonente bi wax ko sëriñ si wax ko fi kulli aan ñu leen ñu jàng si alquran te xam ne diine si lay soso jàng fi njëkk jàng fi mujj képp ku jàngul du doon imaam doo gis ku jàngul muy toog si biiro ku jàngul muy doon imaam yàlla ko wax

الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يونس جل أدعيتي فلا أدعيتي له Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni képp ku jaay deru tabaski na nga xam ne amoo tabaski sadaqallaahul aziim wa nahnu ala ma xaala rabbuna wa xaaliquna wa awraana min asaahidiin takbir dama di jigéen tollu saa diggu ndaw lépp luy safaan ma daw ngir bëgg a baax ba faw waaye yi lay àndandoo bon jàpp saa saw ma tàmbaley buloowu pisin paate tuux poon ak a yey kew ne saa dundu bànne royukaay donte may taaw su ma demee ba saa moroomi bàyyi xam li ma woddoo waay waay muri balaa nu gor mi ma sangoo ma xam luy mbaraan ma tàmbale yendu saytaane naan ma del fanaan gumba tox si waxu ndey ak baay waxatuma laag bu bàjjan ak nijaay ay ku may wàllu ay ku may wàllu jigéen rekk a sonn waa lan moo tax duñu fonk jigéen si naka quraan sóoratu rijaal déedéet déedéet sóoratu lisaa rekk lañuy yegg ci tax ngeen war ne yàlla dafa tëral jigéen. loolu kase. déedéet may leen ñu noppi ñëw ñëw. keroog ba yonente bi nekkee saxaaru Hira. sallallahu alayhi wa ba Jibril gane si ko indil ko alxuraan ba mu jaaxlee ba dellu sa kër ga kan moo ko daloon. jigéen. ah kay jigéen googu moo nekkoon suñu yaay Khadija. bakari dajale dajale alxuraan ba mu mat kaamil bu mat sëkk jigéen la ko aa ah, kay jigéen googu moo nekkoon Hafsatul bintu Omar nekkoon soxnay yonente bi xanaa xamoo ne jigéen lañu njëkk a faatu ci lislaam jigéen googu mooy kan jigéen boobu moo nekkoon Sumayya mooy yaay jigéen mooy bàjjen aa ah, ndekete jigéen kay ku mata fonk waa Buso di jaaratullah waa léegi lan mooy wareefu jigéen xanaa topp ci bi ak roy soxna ñu baax ña section jardin bi nga xamante ni war nañoo jàll dem ci classe su CI ci ñoom la ñuy dem jox leen seen ay diplôme neexal leen xam ne ne kontaan nañu ci ñoom waaye aw sas itam mi ngi leen di xaar ndax jigéen nañ ci am njàng war a jëmaat nag ci meneenum njàng mu gën a kawe kon gone yi nga xam ne ñoom la oustaz Moustapha di lim seen i tur nañu ñëw fii ñu jox leen seen ay diplôme allahu akbar aywa kon ñu jox diplôme yi mudir mu jox gone yi seen ay diplôme faatu mbay Fall di ab soññee nag bu mag Mamor Fall maam Ramata Diop ak maam Jaara Fall ñu may ñu ak teewlu akuk dal bu baax rek ndax ci kanam ay discours yu am solo dañu fi jàllaat ki nga xam ne mooy directeur u institut bi tam dana fi jël kàddu wax ci turu institut bi ak taxawaay yi ak yi nga xam ne mooy naal yi mu naalal institut bi ak gone yi kon gis ngeen ko noonu mudirul azhar sëriñ Fallou Bousso Thierno mooy jox xale yi seen ay diplôme ñu immortaliser ko soxna si nañ may photographe bi mu jël ay image am macha allah. la ndax di door a jàng rek am diplôme loolu mooy wane ne diplôme yi war naa tàmbali waaye wuru fee yam nañ ko continuer ba fa diplôme ya yam bu ma nee nekk ndax jamono ji dafa soxla lool ndaw ñu am xam-xam rawate nañu doon ay taalibe murit nag lu am solo la image yi nañ ko garde ba bis bu demee gone yi bu ñu demee ba am seen doctorat ñu di ko fàttaliku Cheikh Mbacké Niang aywa nangul diplôme bi nangul inspecteur moo lay jox sa diplôme jàkkaarloo ak photographe bi mu photo la photo bu rafet ayo joxal sëriñ bi diplôme honorable guide religieux, chers personnels administratifs, avec à la tête Serigne Abdoul Ahad Bousso et enseignant de l'école franco-islamique Serigne Afia Bousso. Chers parents d'élèves, chers aimables invités, je vous transmets tout d'abord l'expression de mes sentiments les plus sincères. Nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de terminer l'année scolaire 2021-2022 en beauté. Cette année est marquée par un travail dur et efficient produisant ainsi des résultats performants considérables. Ce résultat est obtenu grâce à nos braves enseignants et au personnel administratif. Nous, vous remercions énormément de la qualité des enseignants apprentissages, de l'encadrement du suivi et de la disponibilité sans L'école franco-islamique Serigne Afia Bousso constitue une aubaine pour toute la population de Darou Marnan, car elle participe à l'éducation et à la formation de l'être humain. Nous ne pouvons terminer notre intervention sans remercier l'ensemble des parents d'élèves avec à la tête Sokhna Daba Ndiaye, la présidente qui n'a pas menacé aucun effort pour la bonne marche de l'école. Madame, Monsieur, en ce jour fête, nous exprimons notre soir et encore une fois merci à tout le monde. الشكر والتقدير الحمد لله الحديم بلا هاية والباغي بلا نهاية الذي على في دنوه ودنا في علوه والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره واصطفاه أساتذنا الفاضل أصحاب المعاني معاني العلماء نحييكم بتحية أسماء وأجمل ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد باسم جميع الطلاب مدرسة شرين عافية بوسو نشكركم بحسن حضوركم أو نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونحاول بالشكر والتقدير والتبجيل لمديرنا عبد الأحد بوسو الذي منذ احتلاله على منصب الإدارة ودعا نصب عينيه على الخدمة والمكافحة في سبيل الله لنصر دعوة الدعوة شيخ الخديم رضي الله عنه ونشكر أيضا أساتذتنا الفضلاء حاية الشكر لقد أنرتم دربنا بالحطاء والمعرفة وبفضلكم حقنا هدفنا في الوصول للأسماء شكرا شكرا لأفادلكم ومجهوداتكم الحيمة التي لن ننساها humtum bi ihtimaami bi taqdiimi duruusi alaa akmalil wajh lakum minna kulla shukri wa taqdiir wa natamanna min al mawla azza wa jalla an yajziikum xayra alaa kulli majhudaatikum wa sa arxilu mubaasaratan bisqaati baxdi kalimaati shukri wa taqdiir للذين كانوا معنا منذ البداية إلى النهاية وحاسة الأباء والأمهات للطلاب الذين نفتخر دائما بجهدهم وحسن معاملتهم واهتمامهم ومحبتهم بارتفاع اسم المدرسة وندعو لهم التوفيق والحون والسلامة bi barakati Cheikhul Xadim radiyallahu anhu wassalaamu ko waxee noon la mahadu Serigne Afia Bousso li tarbiyati wa taalim dafa doon daara joo xam ne ju am solo la njàngale moo xam ne njàngale mu am qualité la ñuy def ci wàllu arabe ak français te itam ñu xam ne daara daara la joo xam ne nekkul rek école informelle maanaam daara joo xam ne teguwul ci yoon fépp foo xam ne fi la daara war a jaar ba mën a ubbi mën a def ab liggéeyam foofa dañ fa jaar ba looloo leen may tey jii ñu toog di def fin d'année représentant IEF inspecteur de l'éducation et de la formation bu Mbacké yabal fi délégation Serigne Fallou Mbacké mi secrétaire bi teewal ko fi waaye itam ñu ràññee ay jàngalekat ak ay inspecteurs yu mag ci département bi ñoom ñëpp ñu ñëw teew fii ngir fekke feet gi loolu nag li koy firndeel mooy classe yi nga xamante ni ñoo nekk ci école bi juróom benn classe la li ko dalee CI ba CM2 nag ku nekk xam na ne mooy classe bi nga xam ne moom lañu ñu war a defee examen muy CFEE certificat fin d'études élémentaires looloo waral nag seen participation ci examen yi nag doon participation bu ñëpp ràññee ñu def ci ay résultats yu am solo ci ñetti at yi weesu 2019 2020 ba 2021 tey jii nag ñu am occasion wu nag war a jël seeni diplôme certificat yooyu nga xam ne IEF bu Mbacké muy inspecteur de l'éducation et la formation bu Mbacké moo ko décerné booleem élèves yi nga xamante ni dañuy jàng ci daara ji muy ñi nga xam ne ñoo doon def CM2 ñu nag seenub lim ci 2019 toll nañ ci 11 personnes ndax bu ñu fàttalikoo 2019 école bi am na 83 pour cent ci résultat yu CFEE loolu nag lu jara saluer lu lu jara saluer la lu jara sargal la lu jara bàyyi xel la kon looloo waral ñu bëgg fukki élèves ak benn yooyu nga xam ne ñoo amoon seen certificat fin d'études élémentaires war a dem collège tey ñu am occasion nag war leen jox fii seen i diplôme ñooñu nag mën nañ cee lim ku ñuy wax góor a Gora góor a Diop mën naa jege ci ak Maxa Diop Maxa Diop Ndey Mbenn Faal Ndey mbakke Faal Ndey Faatu Lay Faatu Loo Maam Jaara Mbàkke aadama sàll Ami sàll làmp sow nday ami tàlla ñooñu bu ñu déggee seen tur mën nañoo jege si fii it ak benn yooyu dañañ woo sëriñ Abdul Ahad Bousso gaas sëñ Abdul bu Bousso gaas mi nga xam ne moo jiite jamayat siratul mustaqim ak école bi ñuy wax soxna Assawaalo Mbakke mu ñëw moom ak Sayida Safiyatu Diagne mi nga xam ne moo leen yoroon doon leen jàngal moom itam ñu ñëw ñëw joxal ñooñu seen diplôme CFEE yi. waaye ki nga xam ne moo leen di jox diplom yi comme ni ko suñu kilifa gi waxee moom mooy Serigne Abdoul Ahad Gaz mu nekk kilifa goo xam ne jàpp na ci liggéey bi diine ñor na ko xam-xam ñor na ko waaye tamit dina ci fegoo ak yaa Seyda Safiatou Dieng dina ci fegoo ak yaa Seyda Safiatou Dieng bismillah. waa kay jërëjëf. sëñ Abdoul Ahad Bousso moomu moom itam yor daara ju mag barabu jàngukaay bu mag boo xam ne dañ fay jàngale alquranul karim ak lugal arabiya ba sax mahad shaafiya Bousso bii fi la ay dongaam di ñëw di defe si examen entrée en sixième loolu di lu am solo loo xamante ni itam war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax waaw ñi ngi noonu di di leen jox diplôme yi euh, Euh, euh, ya Sayda Safiatou Dieng mu ngi noonu ànd ak ay dongoom di leen jox seen diplôme yi nga xam ne moo leen war a jàllale ci collège bi ñu war a wéyal seenum njàng bàyyi xel ne ñii ñuy jox seen diplôme mooy promotion 2019 des na 2020 ak 2021 yooyu ci kanam tuuti ñoom itam dinañ ci ñëw incha allah takbir ñu may leen loxo bu baax a baax takbir allahu akbar ma jug njaabalaat saw fas jubal dem ca sab école te sàlloo yar ak teggin ku man lii ne ñëw dem xarañ man lañuy def kulla aw xaadde ñoo ma doy isa kuntalam taarif negal tuut ma wax sëriñ afiya bu soo ma daa jàng tey béral xasiiday sëriñ tuuba de leen dippe it si neem baa di mahat seex nga teg afiya bu soo waxal institut Cheikh Afia ndem tubaab nga xam ku dem daaru mën naan gee ca bustaanu aarifiin fa ngay fekk gis school ku dem gis fa ay xikam dañuy def yambar jàmbaar mu doon mbër mu bar di buur ci xam loog xam ak xàmmee te koy xamle ngir xeram dañuy jàpp ndaw luy daw lu dim jàng farkaduy ci xam-xam ba muy mujjee di koy xamle ngir amam dañuy yor di yar tey yiir di dig leen ñu yër di li ci ay téere ngir am leer ci xam-xam ngiruk gënam tefes fees dell ak xam-xam akub yar te seel jëf sawar set yiweeg laa biir ñu ne nawi jëfam ajaajëf sëriñ Abdul Ahad Buso almudiir sa jëf rëy na mat naa roy na bur jóor la xéewalam ajaajëf sëriñ Abdul Ahad Buso almudiir sa jëf rëy na mat naa roy na bur jóor la xewalam baloo jëf ci ren yow mi dewen muy fukki fukkam ci barkeb sëriñ Tuuba ak sama maafiya ku gëm sëriñ Abdu sikkoo sikkaloo kenn sikkuwul ni doo sànk kennum nit ba muy reccu ci mu jëm fasukuran wa merci ngeen yeyoo ngeen fi ñun fasukuran wa merci thank you ngeen yeyoo fi ñun azatiisu naa yéen ñi joxe ay leçon xam fasukuran wa merci thank you ngeen yeyoo fi nun asatiisu naa yéen ñiy joxe ay leçon xam ki doon jéem def way wi di seenub élève bu ndaw xamal maam bu soo faal wuyoo moo di aw turam ki doon jéem a def way wi di seenub élève bu ndaw xamal maam bu soo faal wuyoo moo di aw turam salaatu wasalaam macha allah soxna maam jaara ci discours bu am solo boobu nga xam ne wax na ko fii mu doon e-, élève boo xam ne élève bu exemplaire la parce que raccourci bi nga xam ne ci la jaar yaakaar naa ne bu mucc ayib la sag la itam ci école bi ndax école bi commencé na nag di produire te moom production yi njëkk yi ci école bi ci la bokk kon ñu ngi koy jaajëfalaat bu baax a. léegi nag ñu war a ñëw nag ci ni ma ko junjee woon sànq ci jëmm joo xam ne. bu ñu tuddee institut Serigne Afia Bousso bu ñu ko tuddee danañ xam ne tudd nañ koo xam ne loxoom mësul jóg ci daara ji muy Serigne Fallou Mbacké Mané nga xam ne daara ji jël na tey initiative wu sargal ko ci bis bu màgg bii ku ñuy sargal nag daa am jëf joo jëf ju tax ñu lay sargal sëriñ Fallou Mbacké maane daara ji bam ne ju tàmbali di liir la ànd ak moom ba muy waxambaane mu ànd ak moom ba mu di xale bu góor di waxambaane mu ànd ak moom tey ba muy mu kalaf di magum jëm mu ànd ak daare ji jël loxoom di ci def jël alalam di ci def mooy ki njëkk tabax ñaari salle de ci daare ji ci daara sëriñ Afia Bousso ji kon nag sëriñ Fallou Mbacke maane moomu ak yeneen i jëf du ma ci guddal sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno mi nga xamante ni mooy wax ci turu institut bi. ngir delloo njukkal Serigne Fallou moomu mi ngi nii toog dina ci ñëw léegi. kon Serigne Mamor ci turu Serigne Alhaji Fadilou Bousso ci turu euh, fondation Jaalibatul Maraaxib bi nga xam ne moo lëkkale njabootuk Serigne Afia Bousso gépp waaye banqaas bi nekk ci biir di meññetum fondation bi di institut Serigne Afia Bousso bi nga xam ne day meññet. ci ndonol li nga xam ne sëriñ Afia bàyyi na ko fi muy jàng ak jàngale sëriñ bi wax na ko léegi li fi nekk ci kër sëriñ ci ay daara kenn xamul lu mu toll waaye école bii dafa doon loo xam ne ci yiñ mujj a samp la waaye résultat bi mu def xam nañ ne barkeb mag ñi e, feeñ na ci bu baax a baax kon sëriñ Mamor bi ñuy samp école bi ci taxawaayu sunu mbokk sëriñ Mourtada Bousso imam estati sëriñ Afia Bousso bi nga xam ne sëriñ Abdou Lahad Afia moo ko jiite ak ñi mu ko àndal euh, waxtaan nañ ci ak sëriñ Mourtada ngir ay taxawaay yoo xam ne war na ay classe comme ni ko sëriñ bi waxee léegi sëriñ Mourtada Bousso bi mu ci waxtaanee ak sëriñ Fallou Galas Mané da cee def taxawaay bu am solo Oustaz Ablaye Diop wax na ko léegi. muy ñaari classe daanaka yi nga xam ne moo njëkk a symboliser eh, barab boobu moo ko tabax loolu nag di jëf ju rëy rëy joo xam ne moom kenn ku nekk xam na ko ci def lu baax ci daara yi ak jàkka yi lu ci bëri sax nag wax dëgg ci sutura la koy def waaye dafay ne lii buñ koy def eh, xam nañ ne mbiram la mbirum lislaam la ngir yàlla rek moo tax mu koy def waaye prix de encouragement ak jaajëfal dafay dafay lu munta ñàkk ci mbokk moo xam ne gis nañ ne bëgg na lu baax te di ko def saa su nekk loola mooy jaadu na kon bis bu mel nii nga xam ne ñu ngi ciy sargal xale yi ku mel noonu nga xam ne jëf na jëf ju rëy nii ñu feeñal suñu mbégte feeñal suñu yéene ngir jaajëfal ko tatagal ko ñaanal ko it ngir suñu borom gën ko koo man loo kon dal kàddu yu gën a rafet te gën a mat ñu ngi la koy teg sa loxo yow sëriñ Mamour ak sëriñ Xaadim Euh, nga jottalil ñu ko sëriñ Fallou Gallas Mané ñaan yi nga xam ne nag mooy ñaan yi sëriñ bi moo ko fag moo ko féetewoo muy sëriñ Alaaji Fadil Bousso xam naa ne ñaan yi danañ ko teg ci loxoom te incha allah rabbi mbooleem njabootuk sëriñ Afia njabootuk sëriñ bu soobee waaye ñi bëgg lu baax ñëpp muy jàngalekat yi ak boroom xam-xam yi ñëpp xam nañ ne képp ku jëf ci luy doxal am njàng wala luy doxal daara ñoom nga ko jëfal kon yàlla na ko yàlla taxawu ko daal kàddu yooyu lañ doon lay taaye rek ngir tatagal sëriñ bi ngir bu war ko jox diplôme bi wala cadeau bi nga xam ne cadeau jaajëfal la ak ñaan bu ñu doon defal sëriñ Fallou Bousso sëriñ Fallou Gallas Mané kon ñu ngi tënk kàddu yi foofu. ñu déglu sëriñ bi mi ngi jox sargal bi nga xam ne moom la institut islamique sëriñ Afia Bousso sargal sëriñ Fallou Mbacké Mané mu jox ko sëriñ Mamor ñi nga xam ne ñoo ko fi teewal. sëriñ bi ñu ngi lay seeral ne ni ko sëñ Abdoulaye waxee sëñ Fallou Mbakke bi nga xamee ne moom lañu taxawal daara ji biñ ko ko waxee ñetti classes yi njëkk a moo ñu ko tabaxal ànd ak at mu jot lépp lu mu yëg na yitte woon na ko mu jàppale ñu ci ba taxaw te ba koy def ngir yàlla ko def ak ak ak mbokk ak moo tax bi ñu demee ba tey jii tey ñu àgg fii ñu àgg am résultat yu toll ni ñu àgg ñu ne jaadu nañu woo ko yëgal mbokk yëpp ne def ko lu baax la ñu sargal ko ci kon loolu moo tax ñu feeñal yéen li ci moom jërëjëf yéen mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bëgg fi jottali ay kàddu muy kàddu yu néew te ci am mbégte lool nag muy kàddu yoo xam ne mi ngi bàyyikoo ci sëriñ Fàllu Mbàkke Maane di mbokk di xarit di am di jàmm bis bi nekk bis bu ko ñor bis bu ko yitteel waaye nag ku ne xam na ne jaam ak bëgg-bëggam waaye yàlla mooy dogal amoon yéene teewal fi boppam nag ànd kook ñun ñii ñëw fi teew bi waaye sunu borom def mu am ngànt loo xam ne moo ko gàllankoor ba mënu koo teewe mu wooma ci suba xamal ma ne waa kër sëriñ Afiye bu sa kët dafa am bis boo xam dañ koy def te bis bu leen ñor la léegi maa amoon yéene ñëw fa waaye sunu borom dugalu ko ma bëgg bu ngoonee nga ànd ak sëriñ xaadim ngeen dem teewal ma fa ndax bu fa teewee mel na ni yi man maa fa teew kon nuyoo boobu bàyyi ko ci moom maa ngi koy teg ci loxob sëriñ fàllu Bousso Mële nga xam na mooy xalifab sëriñ Afia Bousso di sama sëriñ nag ndax léegi bi ma agsee sëriñ Mourtala dafa maa fab di ma installé ci wetam ma ne ko kii kat du ma toog moom bokk ak moom ab jataay ndax alxuraanul karim ku la ci xamal benn baat wala mu xamal la ci benn aaya wala mu xamal la ci benn Égypte sëb sëriñ la te moom jàngal na ma ngi fàttali ko entre 1971 ak 1972 booba maa ngi bàyyikoo ci daara war a baraat demaat ci beneen daara nekk foofu ci kër sëriñ Sam Mbàkke Ndulo googu boobu moom mi ngi ci kër sëriñ Bousso Ilimane Serigne Sam boole ma ak moom ma dem fa mu di ma jàngal xam naa lu mu néew néew def naa fa ñetti weer ba jëm juróom benn weer kon la kooku sama sëriñ la te ku la jàngal alxuraan ak sa sëriñ la moo tax bi ma bëggee sare wetam ma ne ko du ma toog ci wetam ndax sama sëriñ la kon maa ngi fab nuyoo bii gudde ko teg ci loxoom mu teg ko ci loxool njabootu njabootuk sëñ bu Buso gépp nag tàmbalee ko ci kii nekk sama wet muy sëriñ sëriñ Abdul Ahad Cerno di sama goro mu ngi leen di xamal ne yéen yéen a ko yéen a wax na da ngeen koy sant waaye moom waru leen koo sant moom na war a sant ndax li ngeen nekk ab cëram la ni mu doone seenub cër noonu la doone ab cëram waaye nag yoonu sëñ Tuubaa yi dafa yaatu ak kenn ko ne ak wet ga nga koy liggéeyale yéen yàlla nattoo leen ngeen nekk ci daara yi di fi liggéeyal sëriñ Tuubaa wala yoo moom it yàlla nattoo ko mu nekk fee ci taax ya di fa liggéeyal sëriñ Tuubaa ba mu fay dem nag lam yéene woon mooy diirul ba fay nekk ak diir lu muy man lépp loo xam ne mu ngi koy yëngatu mu yëngatu ko muy du jëm ci biir lislaam te loolu yaakaar naa ne képp ku ko xam war ngaa xam ne loolu mooy yitteem mooy liggéeyal diine ak liggéeyal lislaam fépp lu bëgg fu fu fu mu dégg lu baax rek loxoo ma nga fa moo xam ca daara ja la moo xam te jumaa ja la moo xam te jàkka ja la man nag mën naa koo seere ndax mën naa ne bañ nekkee xale yu ndaw ba na gën mosunoo tàggoo ba fi may wax ak yow foo ma gise gis ko foo ko gis ma nag lu ma seere ci yaakaar naa dëgg la ndax wala fi dafa wax na bu nee diw a baax na ngeen ko laaj ay mbokkam kon nag buñ ko seedee ak baax rek nee na wóor la loolu baax la nee nag moom moo leen warul sant ndax lii ab tëram la moo ko waroon a def comme da ngeen fee nekk di fa nag lu mu fi def lu mu ci man di def bu ngeen ne da ngeen koy sant na ngeen xam ne cant gi aajowu ko woon na ngeen li mu leen def daal mooy di leen encouragé ngeen ngeen góorgóorgóorloo ndax nit kat nee na lépp loo xam ne maamam daf yaa nekkoon ba am te ngërëm bu ca nekkee xam na bu mënta maam la am la maamam amoom itam teewut ab cëram moom dara ca jot kon na ngeen sax te gën see góorgóorlu te xam ne sëriñ bi kat nekkiwul foon lu may lii muy jàng ak jàngale jàng ak jàngale ak liggéey comme nag yàlla natoon leen loolu ah ma ngi leen ci encouragé bu baax di leen xam ne da moom li fas yéene mooy bu bu leen bu bu leen bu ko seen dara ump lu mën a doon daal ci àdduna bu ngeen dugg da koy yëg bu ngeen bu ca duggee bu ko yëgee itam lépp loo xam ne lu lu man la ci xalaat mu rafet ak jëf ak yéene am na yéene fas yéene ko bokk kook yéene nee li ngeen def nag da ngeen a baax rek waaye wax dëgg yàlla jaru ko woon sargal bi ngeen koy sagar ndax moom nee day def rek te yàlla tax lépp lu mu dafa weesu ko rek fàtte na ko rek te lépp lu mu wan gannaaw rek fàtte na ko kon moom it mi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla yéene ji ngeen ci amoon ba def fondation bii muy law ba agsi bi mbooloo mii kon a xam naa ay taxaar ay taxaar taxut ndax di amatuñu ak jot fi mu nit ñi fi mu toll amatul jot lu baax rek li nit mën a woo ñu wéy leen ca waaye lépp lu leen woo loo xam ne bokkut ak lu yàlla gërëm yonte bi gërëma ko Sëriñ Tuubaa gërëma ko buñ ca mënu dara it jàpp seenu njàmbur waaye nag comme yéen a li nga xam ne moom la yàlla bëgg yonte bëgg Sëriñ Tuubaa bëgg ko nee na fas na yéene ko ànd ak yéen lu man doon daal lu bu ngeen ca duggee na ko yëg rek lu mu ca man daal fas na yéen a ànd koog yéen incha allah jërë ngeen maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen xamal na nag wax gi moom xam naa ne doonul suñu bind waaye yéene ji daal moom weesu woon na lii moom daal sant na leen gërëm na leen te mi ngi ñaan it sëñ taxawu leen ba lu ngeen man rewen ren bu déwénee ngeen mën lu kóob lu ngeen man déwén bu ginnaaw déwénee ngeen mën lu kóob bi yaay Seydina Muhammad jërë ngeen jëf sama xol seet na wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dañuy jëm ci beneen deuxième promotion bi muy promotion bi nga xam ne ñoo am seen certificat en 2020 2020 am na 16 candidats yoo xam ne am nañ seen certificat ci biir 16 yi am na 12 yoo xamante ni ñu ngi ci daaray Serigne Afia Bousso ji ñooñu nag lañ war a jox seeni neexal xam na sëriñ fàllu Mbacké maa ne délégation bi ko fi teewaloon Serigne Mamor na waaj joxal ñu ñenn ñi ak Serigne Abdou Lahad Bousso Muxtaar mi nga xamante ni moom itam euh, moo fi teew teewal fi daayira Muxaddamatul Xidma nga xam ne seen diplôme certificat ak entrée en sixième ñooñu tey ña nga war a nekk saani i'dadi ña nga war a nekk cinquième collège cinquième collège fa lañ war a nekk ren ji kon ñu xam ne promotion boobu promotion 2020 la incha allah bu ñu paree fii dina ñëw ci 2021 bi ak Mamadou Fadal mi nga xamante ni moom la sëriñ bi teg daara yi nekk ci dëkk bi ci loxoom kon moom teewal na fi teewal fi sëriñ Mamor teewal fi sëriñ xabbaan waaye teewal fi mbooleem ñi nga xamante ni dañuy yëngatu ci xam-xam ci dëkk bi kon ñi ngi noonu ñu leen di jox seeni diplôme macha allah loolu am na solo waaye ñu leen di fàttali ne am na yeneen lijaasa yoo xam ne war nañ ko fee joxe mu nekk sax lijaasa yoo xam ne joxuñu ko élève joxuñu ko kenn ci équipe pédagogique bi waaye dañ koy jox ay woy jur dongo yoo xamante ne ah. dañuy def liggéey bu am solo. Ah. mu doon loo xam ne mbetteel lay doon ci ñoom. ah oustaz nag foofu faw nga taxaw fi. waaw liggéey bii su accès fii ba ñu am résultat yi nañ ko sante parent d'élèves yi. wallaahi parents d'élèves yi ay jàmbaar lañ. Mhm. ndax nag bu ñu ubbi woon école. am mhm. ami jàngalekat. am ay jumtukaay yu doy te amuñu parent d'élève yu ñu jébbal seeni doom kon jàpp naa ne école du dox kon kóolute gi dox ci diggante parent d'élève yi ak institut Serigne Afia Bousso loolu yaakaar naa ne lu jar saluer la ay ay soxna yoo xam ne am nañ ci ñoom yaakaar moo tax fan yi bi ma déggee ah benn waay bu doon wax naan lislaam bokk na ci tardel jigéen ñi fii ci Touba day jëf ji weddi na ko. wallaahi. fii ci Touba jëf ji weddi na ko. Mhm. lislaam mës a jigéen. mukk lislaam mës a suufeel jigéen. Mhm. xale yi wax nañ ko léegi ne sóoratu rijaal yi amul ci alxuraan. Mhm. sóoratu nisaa yi moo am ci alxuraan. kon lislaam moo jox jigéen liberté moo dagg buumum njaamam kon lii weddi na ko tey ñi ngi nii taxaw di ay soxna yoo xamante ni ay soxna yu sell lañ mm-hmm. ay saalihaat yoo xam ne tey ñi ngi nii jol yor seen diplôme di wéyal seenu njàng ci collège muy la am solo loo xamante ne nii lu ñu teg suñuy bët la mëñ ko tudd waaye dañuy dañuy may ñaari minute rek ndax élèves yi nga xam ne ñoom ñooy def sem 1 jii ak ñi nga xam ne ñoom ñoo doon def sem 2 dafa am benn surprise boo xam ne dañ ko jagleel seeni ñaari jàngalekat. akbir. macha allah muy lu am solo ndeysaan xoolal ma lii rafet na. élèves yaa ngi teral seeni ay jàngalekat. élèves yi defar seeni kado yoo xam ne ay surprise lañ ñëw fii ci fin d'année bi di ko jox ki nga xam ne moom mooy madame Camara ak yaa Seyda Mame Diarra Fall macha allah. macha allah lii daw na yaram lii mooy wane ne institut Serigne Afia Bousso dañuy jàngale waaye dañuy yar ndax xale yi de xam nañ teraanga xam nañ lu rafet macha allah nañ xool kado yi. kado bi na solo macha allah macha allah. allahu akbar takbir muy lu am solo. muy lu am solo loo xam ne jërë ngeen jëf kon dañuy daal di ñëw rek ci. oh macha allah ñu toll fi ñuy bëgg a jeexalee. balaa ñuy joxe kado yi. macha allah tàccu leen ma ñuy waay tàccu leen ma ñuy waay. takbir. takbir allah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. acca léegi da ngeen di arrière nag ñu xool kado bi nga xam ne moom la élèves yi indil ki nga xam ne mooy seen directeur macha allah. directeur. allahu akbar. takbir. moom lañuy ñuy jox takbir allahu akbar macha allah. macha allah am na solo li daw na yaram. l'infatigable ki nga xam ne du sonn mukk du tàyyi ci liggéeyal Serigne Touba gis ngeen. loolu moo di ab kadoom. liggéey bi nga xam ne bi muy nekk ci action. di liggéey Serigne Touba ci taxawaayam yu am solo di kado bi nga xam ne moom la ko gone yi sargale. jërëjëf directeur sëriñ Abdou Lahad Bousso. xale yi lan lañ indil seen ay jàngalekat ñoom tamit vraiment institut sëriñ Afia Bousso école la boo xam ne ay xale yu xam teraanga ñoo fi nekk macha allah. takbir. macha allah takbir. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu baax a baax. macha la ñuy jox. ma yaay booy waay. takbir. diplôme d'honneur la. macha allah yaay booy tàccu leen ma ko takbir takbir jërëjëf nañ jóg sant yaa sayda ndax sant rek a war ku santul dus gor nay ne kor yaa ngi sant la te yow yaa ñu def asgo te tax ñu bañ lu bon te tax ñu bëgg lu baax ba kuy jéem ñu sant la ngor ak diine daa yaa ko tekkalaat fit ak gëm nga booleeg ngor gu rëy ñépp sopp la ba nit ñi wut dunya ak pal nga jóg di way nga yàlla am cantam gu rëy ñépp sopp la pexem yàlla moo gën pexem nit taxam fa yàllay fexe yàqkat egg ah, xooleen baay jëwriñ macha baay daaru ba allah. jeeju. gis ngeen teraange ji nga xam ne indi na ko fii muy ay cadeau yoo xam ne def koo defar jox ko ñaar ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci équipe pédagogique bu Serigne Afia Bousso te leen waralul mu def ko lu dul cofeel gi mu am ci ñoom ak bëgg gi mu am ci ñoom. ngir liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu koy def mu jox ko benn bi mu jox ko madame la secrétaire soxna Kiné benn bi mu jox ko yaa Seyda yaa Seyda Safiatou Dieng tàccu leen ma ñaar ñooñu waaye tàccu leen ma soxna Kumba Yummi waaye kii de xam-xam ñor na ko yar ñor na ko ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo yor ay njabootam di leen jàngal di leen yar mu gis leen bëggal leen seen bopp ba jël teraanga ji jox leen ko ko ñu ngi ñaan suñu borom yàlla ko fay kon jërëjëf soxna Kumba jërëjëf sant nañ bu baax a baax. gis nga ci jërëjëf macha allah jërëjëf. ku ñuy ñaanal na ñuy ñaanal bëggug Bamba ne moo jik xol bi mooy suuxat suñuy yëg-yëg. ku ñuy ñaanal na ñuy ñaanal takbir Bamba ne moo jik xol bi mooy suuxat su ñuy yëg-yëg te moo ñuy soñ ñi moo ñuy dol ak sellal te mooy tax yàlla la buur tàgganti say tak-tak sëriñ Tuuba di maanaam ndex nu waay soobo la cay tooyee ku nuur fees dell kiy jag-jag ku mos aslëf ci yoonam wii dafay fàtte waneen yoon wum awoon ak lum ko jik jik jik ay waaykaay leen ñu jël sunu xol yi jébbal tey sëriñ Tuuba lu waay ndaw ndaw lu waay mag mag lu waay ndaw ndaw lu waay mag mag maa ngi ñaan ku gëm sëriñ Tuuba na nga toog ñu déglu sëriñ Mourtada Bousso muy nga mooy wax ci turu école Euh, que Serigne Afia Bousso Serigne Moutada bismillah vous avez la parole mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu sante yàlla bu baax a baax julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam sant Seex Ahmadou Bamba xaadim rasul di jaajëfalit sunu maam Serigne Afia Bousso di ñaan yàlla mu taas ñu ci barkeem ca daje ñu ak ngërëmam ginnaaw buñu ñu sante yàlla bu baax ci bis bii nga xam ne institut islamique Serigne Afia Bousso bi nga xam ne depuis bi école bi ubbee ba léegi ci année deux mille vingt et deux mille vingt deux ñu tàmbali session bi ci mois de octobre incha allahu rabbi fas dëj ko ci fin mois de début mois de juillet bi. ñu am benn fin d'année bu ñu jàppoon tey ngir ànd ko ak élèves yi ànd ko ak parents d'élèves yi ànd ko ak soppe yi ànd ko ak xarit yi boobaak léegi ñu ciy dox di ci wax di ci jëf ba suñ boroom dogal ñu àgg fii tey ci cappaandaw gi kon ñu ngi sant mboolem koo xam ne ni teew na fi di góor di jigéen di mag di ndaw di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen teewaay di sant bu baax it parents yi ci kóolute gi nga xam ne am nañ ko ci institut islamique Serigne Afia so ba jël seeni doom indi ko ci ñun ngir ñu def ci ñoom xam-xam def ci ñoom yar def ci ñoom ak murid sadex kon parents d'élèves yooyu nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di teg sant gi ci loxol président parents d'élèves yi soxna Daba Ndiaye mu àggale ko mboolem bureau parents d'élèves yi waaye jàllale ko ci mboolem parents d'élèves yëpp tey nag école bi mi ngi tànnoon ñaar ngir sargal leen ngir kat ab soññu lay doon ci ñoom waaye soññu it ñi nga xam nañoo ñoo nepp ci ñoom muy soxna say na bu Jóob di ku jàmbaare ci école bi naka jekk ay at yu bëree bari muy ànd ak ñun ci école bi di ci jëf di ci wax di ci def lu mu xam ci lu baax lu ne mu andi ko ci école bi kooku tey ñu tànnoon ko ren ngir sargal ko waaye it soxna maam Kumba Fall di ko def pësteef ci école bi ci am ci pësteef lool cay di génn ay solution ak xalaat yu am solo ci école bi moom it ñu bokkoon ko ci ñu tànn tey ci parents d'élèves yi sargal leen ngir ñu yóbbaale mbooleem parents d'élèves yëpp waaye nag bu ñu sañoon bépp koo xam ne sa doom ñu ngi fi ñu ñu sargal la fa nga nekk kon bu ñu tànnee ñaar ñoo ñu sargal leen yóbbaale nañ parents d'élèves yëpp kon soxna Daba ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ngir kóoluteef ki nga am ci ñun. naka noonu lañuy ñuy bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñooy équipe pédagogique nga xam ne ñoo yor njàng mi tàmbalee ko ci directeur ak sëriñ Cheikh Abdou Bousso bi nga xam ne moom mooy yor wàllu njàng mooy wàllu saytu mi ak ñiñ ko àndal ñëpp buñ ci limee ñaar rek nga xam ne ay doyen lañ ci ay mag lañ ci danañ mën a yóbbaale ñëpp mooy oustaz Jara ak soxna Safiyatu yaa sayda su ko defee yaakaar naa liste bi sëñ Abdoulaye Diop limoon na leen léegi. ñoom danañ mën a yóbbaale ñëpp ñu sant leen bu baax di leen gërëm ndax xam nañ seen taxawaay ak seen yëg-yëg ak seen jàpp ak seen bëgg ci école bi kon mboolem jàngalekat yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant bu baax it ki nga xam ne moom lañ doon sargal tey muy Serigne Fallou Galas Mané Mbacké ku ne gis na délégation bi fi teewoon moom de day koo xam ne nii ku jàpp ci école bi la. depuis biñ ko tàmbalee ba léegi mu ànd ak ñun ci liggéey bi lépp jiite joo xam ne nii yëg na ne bëgg nañ ko wala xam na ne yëg na ne bëgg nañ ko wala mu dégg ko rek mu ànd ak ñun bañ saafara ko kooku ñu tànnoon ko tey ngir sargal ko moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax école bi nag ci taarix ñu ngi ko sos ci atum 2008 ku ne xam na ne gox biñ ko sos muy bustaanul aarifiin di daaru rahman di daarul naan di barabu sëriñ bu Bousso sëriñ bu Bousso ko xam xam ko ci nitu daara ci jàng ak jàngale ak yar ci loolu rek ci la njabootam nekk ci kër gi ay téeméeri téeméeri daara ñu ngi fi kër goo ci dugg ca doomam wala ci sëtam wala ci sëtaatam ak daara ma nga fa ñuy yar di xamle ñu gis na nag fi jamono toll war nañoo sos benn école boo xam ne nii dafay jàngale njàngalem daara waaye day ànd ak njàngalem tubaab ngir yar bi yarub diine ngir xale yi fiy génne mën a dem bay àgg ci université yi gën a kawe ci adduna ñu xalaat ko ñëw gaaral ko ñi ñu ko séqal ñoom ñëpp depuis 2008 ba léegi ñu ànd ceeg ñun ñuy def franco arabe tàmmule ko ci classe bi gën a ndaw ba àgg ci cm de ñu koy wax presque préscolaire suñ borom degal na biñ demee ba atum 2019 am nañ autorisation boo xam ni mi ngi jóge ci gouvernement bi jóge ci ministre de l'éducation nationale ngir école bi nekk ci école yi nga xam ne yuñ reconnaître la ci àdduna bi ci Sénégal cër yi nga xam ne mboolem benn école privée da koy séddu ci Sénégal yàlla dogal na école bi da ciy jot wàllam mooy waral ne xale yi fi génn bu ñu demee ci yeneen école yi ci Sénégal diplôme bi ñu fi amee muy leen ko jox léegi muy CFE ak entrée sixième day valable ci Sénégal gépp gouvernement bi da koo reconnaître loolu tax na gis ngeen léegi ci ngoon lu mat juróom fukki nit juróom fukki xale yoo xam ne ni école bi génn na leen ci ñaari at yi jox nañ leen fii tey seen CFE ak entrée sixième kilifa dañ ko jox ñooñu ñi nga xam ne ñoo génnoon 2019 yàlla dogal na am na ci ñoo xam ne am nañ BFEM daaw ñi ngi dëgbal bac ñi ngi leen di ñaanal ñoom it suñ borom defal leen ñi nga xam ne ñoo ciy def BFEM ren ca mu ñoo war koo def ci ah, fan yi di ñëw ñoom it ñi ngi leen di ñaanal suñ borom taxawu leen ca sàmm leen ñi nga xam ne ñoo génn daaw ca nekk sixième war a def cinquième déwén ñi ngi leen di ñaanal ñoom it ñu am BFEM ba jàll ci ren classe ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci CM2 ren nga xam ne def nañ seen examen ba noppi ci alxamis bii di passé paraxib bu wàkkee sëñ bu Bousso ñoom ñi nga xam ne ñoom meññ école bi tey ba jaar la ko ci yoon sant bu baaxit jàngaleket yi diiran fukki fan ak juróom ak ñoo ak ñii nii kenn nelawul kenn yendalul kenn fanaanulul ngir li ñuy lijjantee bi ba fet bi jaar yoon alhamdulilahi rabbil alamin ku fi ñëw tey xam ne fet bi jaar na yoon sant nañ ñëpp képp koo xam ne jàpp nga ci ak noo ci mën a jàppe ci teewaay ak ci wax ak ci daw ak ci dox ñu ngi sant bu baax mboolem jàngalekat yi nga xam ne teew nañu fi ca nekkoon ci école bi ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak ñun ci liggéey bi ba jàppalañu ba mu sant bu baax it suñu kilifa yi sëñ Abdou Lahad ak suñu Abdoulaye Diop ak mboolem ñi ko séqal ñëpp bi ñu leen waxee yëg ñun jàppalañ ci ba def ci loo xam ne ñun mënuñu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant ñëpp daal suñu xol sedd na di sant presse bi nga xam ne teew nañ fi muy 24 actu nga xam ne mi ko def direct depuis ci 3 heures ba léegi Serigne Thierno Faye ànd ci ak mboolem ñu ko àndal ñëpp di sant ñi yor sonorisation bi di sant mbooleem techniciens yi fi nekk ak ñi nga xam ne ñoo yor kër gii di kër Seexul Xadim ba permanence ñu mën fee def fête bi ak ñi nga xam ne ñoo yor salle bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant ñëpp suñu xool sedd na wax dëgg yàlla alhamdulilahi rabbil alamin kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullah les trois meilleurs élèves oh non c'est un meilleur élève meilleur Soxna Oumy Diop Yacine Gaye Bousso première Soxna Oumy deuxième Yacine Gaye troisième classe C2 préparez-vous C2 les trois meilleurs trois meilleurs trois élèves de la classe du C2 Sophie première Fatou Seck deuxième et Nogay Kane troisième Nogay Kane classe C1 maintenant préparez-vous C1 maintenant la première les trois meilleurs de la classe du C1 première Mam Gaye Mame Gaye deuxième deuxième Mame Diarra Dieng troisième Mame Diarra Fall numéro un Mohamed Mbacké Fatou Niang Khady Aw Sey Mena maintenant sëy naar Diop aji màgget kan Fallou Seck numéro 2 fekkee ñi ngi fi ñëw leen jël seen diplôme ak seen cadeau venez naar Diop aji màgget kan Fallou Seck maintenant on passe à l'élève la plus disciplinée de l'école Serigne Afia Bousso année 2021 2022 l'élève la plus disciplinée c'est Fatou Seck c'est deux ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax Fatou Seck Fatou Seck C2 élève bi nga xam ne moom lañ tànn ki nga xam ne moo gën a yaru ci école Serigne Afia Bousso pour année 2021 2022 bi ñu nekk mi ngi tudd faatu Seck classe C2 te l'élève la plus disciplinée tàccu leen ko bu baax a baax a baax a baax a baax mooy élève bi gën a yaru ci école bi moom lañ tànn oui Maintenant, on passe aux six finalistes du génie en herbe. Les six finalistes, Nogay Kan, venez. Les six finalistes, Nar Diop, Mam Dien, Nogay Kebe. la candidate classée à la quatrième place, c'est Nogay Kan, SEM2. Nogay Kan, cadeau plus diplôme. Maintenant, la candidate classée à la troisième place, c'est Mben Ndiaye, Sorna Mben Ndiaye, candidate classée à la troisième place. Maintenant, il nous reste deux élèves. Qui peut me dire celle qui est classée en première C'est qui Maintenant, la candidate classée à la deuxième place, c'est... La candidate classée à la deuxième place, c'est Nogoy Kebe. C'est Nogoy Kebe. Oui, Diplôme plus cadeau. Maintenant, la candidate classée à la première place, c'est Mam Diara Dien. Vous applaudissez. Tâchez-le, tâchez-le, vous jaaraama soxna jaara merci beaucoup merci beaucoup félicitations à tous les candidats et à toutes les candidats merci félicitations waay wax gi sax tey moom daanaka jërul muy gudd ndax élèves yi moom daa mel ne leeral nañ lépp ndax man li tax matuma ki seede mooy damay jiitu parents d'élèves yi ba noppi bokk ci école bi lépp luy xew ci école bi rek comme ni ma koy waxee xam naa ni muy doxee ak li ci war lépp kon nag ñi dellu di sant di sant sëriñ Abdou Lahad buso moom mi nga xam ne moo yore école bi di ki teg Serigne Cheikh Abdou Bousso di ki teg Serigne Mourtala Bousso ak mbooleem ñi nekk ci institut bi di leen sant bu baax di leen gërëm ñëw ci jàngalekat yi di sant euh, yaa saydaa ci wàllu jigéen ñi bu ma ko waxee rek mel na nit wax naa ñépp euh, di sant monsieur Diédiou sant Oustaz Jara di sant monsieur Diop di sant ñépp rek sant moom mënut a paase sant képp ku teew ci salle bii rek tey nekk yaayu élève sa xol sedd na guyu yaakaar naa man ni sama xol sedde wax fa dëgg yàlla ndax lii moom ñun ñu tàmbali woon ci benn ba tey jii ñu indi ko ci kër sëñ Touba gi ndax xajatul daaru mar naan loolu ak cant gu wér la ñuy ñaan nag ci yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba mbooleem ñi nga xam ne ñoo ëmb école bi di leen ñaanal gudd fan di leen ñaanal wér di ñaanal élèves yi nga xam ne nag ñoo fi doon jànge ba suñ borom jox leen ay diplôme ah ñoom ñu dem ba diplôme yooyee jëriñ leen ba lépp luñ ci yéeneeg luñ ci mébét ak lu ci seeni waajur mébétoon suñ borom mottali leen ko ci barke Cheikhul Khadim am nañ ci njort lool nag ñun ñi nga xam ne nag ñoo dëkk Daaru Marnaan ñu war a sant yàlla lañ te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi ñu suñ borom may composé ñépp képp ku ñëw rek dina xam ne war a composé ak yow kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm te di ko wax mu gën a continuer noonu rek suñ borom kàttanal leen yeen ñëpp ci barke Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barak di santaat bu baax di gërëm ñëpp ñi nga xam ne bàyyi woon nañ seen yitte ñëw ci jotaay bii nii di ñaan suñu borom mu barkeel xam-xam bi waaye barkeel itam école bi barkeel ñi fiy jàngale ak ñi fiy jàng ñëpp di sant itam bu baax ñi nekkoon ci sonorisation bi Serigne Ibra Diop. di sant itam bu baax a baax mention spéciale maam noo Faye mi nga xam ne moom moo nekk ci caméra bi di ku baax lool di ku am laabiir ak yërmande ci liggéey bi di sant itam photographe ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bi ba mu sotti ak jàmm kon ñi ngi santaat bu baax a baax xëy atu tadris yëpp na ñëpp tàllal tey wax amin sëriñ bi ñaanal ñu di ñaan yàlla ñu fekkee waat ko yaat yu bëree bëri te at mu nekk rek école bi di gën a am ndam dongo itam di gën a am ndam kon fu waay toll nay wax amiin te tàllal ay loxoom amiin amiin amiin amiin wa kullu aamin wa antum bi xayri